Pro Food seen marché bu mag bi nekk na marché bi nga xam ne tubaab yi ñoo ko sanca jaaykat yi nga xam ne ñoo nekk si marché bi ñëw nañ yokka marché bi jaaykat yi nga xam ne nag ñoo dee bugg di toog si marché bi depuis si suba ba ngoon pour gis ñu mën a dimbale seen boppa ak seen njaboot nekk nañ ay nit yi nga xam ne dañ dee daal di jànkuwanteel ak ay jafe-jafe yu bëri taw bi suñuy fekkee fii moto yi suñuy romba dañ dee tuur ndox suñ kaw te ndox bi nga xam ne moo dee nekk di daw si suuf daf dee sonal torop ñi nga xam ne ñoo nekk di jaay si suuf te lii nekk na li nga xam ne bokk na si jafe-jafe yi nga xam ne yooyu lañ nekk di jànkuwanteel ñi nga xam ne ñoo am taabul yi ñoo dee mun a jaay si nawet bi te luñ fi dee liggéey foofu lañ ñee dimbale suñ doom yi pour ñu mun a dem jàngee fii suñ fi naree génn lii dina nekk jafe-jafe bu rëy suñ kaw ñun fu ñu nekk nii dañuy jaxale ngir ne def nañ loo xalaat pour gis nañu mën a am marché waaye ba léegi mënuñ am place bi nga xam ne foofu lañ mën a ibi marché bu ees